alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunu des téléspectateurs à travers le monde entier ñu une Sénégal une émission bu miroir du Sénégal Du TFM télévision Futur Média mm. kan nañ leen indil ak ñan la ñu ni ñoo ngi dërmal lu rëy li ñu dërmal lan la tukki bu sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba jubook yàlla lool di jëwrinu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tukki woon def juróom-ñaari at juróom-ñaari weer juróom-ñaari fan juróom-ñaari waxtu juróom-ñaari saa indi sëri ca bu rëy jëggal ñi nga xam ni ñoom xamuñu ko woon waaye bi ñu ànd moom xam nañ ko ñu dërmal ko moo ndil ñu sërice bi mu yaatu lool landi lool kuy jullit bokk nga ci ñi dul jullit bokk nañ ci lu leen ci boole xéw li dafa baawaan lool ñuy doomi réew mi di suñuy dëkkandoo di suñu am di jàmm bokk koog ñun ñu song ki nga xam ne nag mooy El Hadj Mamadou Mbaye gaar mi mu wuyoo turam lool ma feggoog moom sama wet mbaa xam na war na réew mi waaye dem na ci cinq yi du ma leen ko présenté mm. maa ngi moom a ci ànd gaar mi ñu invité gan gu mag hmm. gan googu di sëñ mbay mbóob dëkk ca Thiès waaye quartier bu mag ba xam ne nag fala madaxtu Seydina Muhammad sallallahu alayhi dëkk waaye quartier culture la quartier artiste la hmm. muy ersan tey mooy sunu gan ñu na ma ànd ak moom nag ci dellu siwaat ak yéen ci émission bi xam ne nag mooy tabala حاج مامودو بنجو سانتي يالله جودي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ني كلف الدين يب ني كلف عاد يب ني كلف عدنا يب ني يوب باخ باخ نك سنو كلفة دروبه يوسف ماجيجن اكو ام اكو اندال عندك اسكنو ريومي ñew jébal la lépp ne la gaar mi kàddu gaa ngoo jërëjëf cheikh Thierno Ndiaye ambassadeur Cheikh na Cheikh Sadbou. wax xeetu wax xeetu. maa ngi lay nuyu bu baax dila la sargal dila la jox sa wàccuwaay bu baax a baax. nu deug man nak ci émission bu mag bi nga xamne dañ la ci fekk ci muy tabala muy émission bo xamne ne bile na ñoo xam ne na ni ci réew mi émission bu mag bi moo leen génne. Hum, hum, hum. mu bokk nak ci cër yu mag ya. tey nag nu tabbi nag war a feggeeg sunu jarbaat bu baax bii di sëriñ bay mbuub xanaa ndokkee réew mi ñaanal leen jàmm tàmbalee ko nag ci sëñ Muntaxa ilmu Cheikh al Bachir ilmu Xaadimu Rasul nga xam ne tubaarkàlla cër bu réy bii nag cërëma ay gi ayama ay gi ci ree ci reeju neex gi ay gi ci mbaax gi ay gi ci yiw gi ay gi ci sedd gi ay gi ci nangoo dékku lépp te lu mu am delloo ko jaami yàlla yi ñu jox ko wàcc waayam ndokkeel ko bu baax a baax Cheikh Thierno ñu ngi tàbbi nag ci émission bu mag boo xam ne bile émission la ci émission yu mag yi ñu tudd nag sëriñ Mbaye Mbuub mu jóge Thiès te cees culture yàgg foo wax nga ko léegi mhm. kon daal tubaarkàll képp koo xam ne kile yaa ngi nekk tubaarkàll ci réew mi ñu ngi lay wax daal émission bi daal ci émission yu mag yi le di tabala émission bi tay dal tabinanti ma feggoog nak Cheikh tierno jay alaaji Cheikh tierno duñu ñu sori maag yow hmm dedet rew mi yeb diine ji yeb ngar mi gi yeb ngor gi yeb nani dal borom jàmm ji dal tay muy seigne Muntaha Mahmadul Bachir mu mam Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul way nonu mel non la mbokam yi mu bokal jamono tok ci sen jalu ma mel waaye du ma sore ak yéen dañu àndandoo maag yéen dërmal seeti kan taalibe sëñ Abdou Karim Mbacké Makarim Wahda moom Cheikh Mouhamed Vadr sëñ Fallou moom maam Cheikh ki jële xale yi ci lëndëm mm. indi leen ci leer kaddu gaa ngoog sëñ Babacar looy nuyoo waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu aouzu billahi min asheytaan arrajim بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل على المختار ورد به أن أمرد له عود وتكرار يا رب صل على المختار وتكراره وابليا الدار بالمختار ثم بهم لو خالت ما لي جرار أقسمت بالله إني للنبي أبدا خل وخيب وما عابه يا بام أقسمت بالله إني للنبي أبدا خل وخيب وما عاب با نبينا المستوى خير الورى خردي في كل شيء وما عاب يابا نبينا المساخر خير الورى خردي في كل زي وما عابه يا باو ترى خسائد توعيد لمالكنا سوائد الحق عات لمن باو والله إني يخل للإله به هب له دون كذاب بن في وجاه لخير در جراء إبليس مكتيبا معيزا من جاه تلا يقزاه لا قد بين للأهداء مزمن هني عبيب لمن نضو بي الله ولو فرادي ومسني مدبرين من لغير در نعم الواحد الله أزكى سلام كريم لا يخايب من بلا زروت لمن جنجا بذكرى فوزي بذكر عكيم لا يفارقني ما به المنتخى وسني ببسرى خيرايا عاي كتاب ليس يا رباه إبليس خط عند من خطاب مسرا لله لله لله لله شكري على خير الورى وعلى على الكتاب بواد الله مجراه أدي خد الله بالمختار دون فرا ينخد لي كل ما لله يرداه سأذكر الله للجنات للجنات للجنات مرتديا أنو ولي خير عليه خان وعبداه بناني الله سنا مانعا ولو حمدي وشكوري على من من عبداه يرضى لي الله كوني در شاكرا وخاد لي خير مكتوب وأجداه أردي إلهي أردي إلهي وأردي المسواب تلاية الكتاب الذي خجل معناه وردي إلهي وردي المستوى بتلاه وتل الكتاب الذي خجل معناه لكم خطابي أهل العرش جولتكم بفضل من سولنا الله ليسعدوا دار أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما سبي الله هو الإله ورحمن خالقنا هو اللزيم من زاخلاو لو الوجود الذي خد سنو خدم خدم خدم خدم خدم خد سنو خدم ما البقاء الذي أبغى من أبغاه أرساه أخمدنا لم يغليه خير من مولاه أسخى الله الله أرسل خير الخلق أخمدنا لم يغليه خير من مولاه أسخى إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على عبد يغزي مولاه للأحمد المنتخب لأحمد المنتخب منتخى منتخى منتخى منتخى سيخ منتخى يلنا في يكتوير لأحمد المنتخب منتخى ما لا يرام أبدا لخيره فاز من لله والله ليخمد المنتخى ما لا يرى أبدا لخيره فاز من لله والله الله فضله خدما وخادم ومن بان جو بالأصل خلاه ونبي رسول متماول تاوي الأكابر من لله ولا بالمستوى بالمستوى بناني بناني بنى القدوس مدرسة المسائل بنال addi sëñ Touba xasida gi ñu doon jàng tey hmm. xasida li maayin ba seet li xasida gu mag ñu ngi koy def addiye Seyduna Muhammad addiye jullit hmm. ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di ko nuyoo mbokki jullit yi ak mbokki yi te kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu ngi lay jox sunu loxo di la nduy te di la ñaanal sunu borom defal la gudd fan gu ànd ak wér ci sayyiduna muhammad ak borom tuuba momadou man de momadou dama jaxlé momadou lo yek lu reuy rek lan la euh euh cheikh tierno ku deg serigne mbey mbou da xam ne daal tubaar tubaarkàlla tubaarkàlla la wóor bi mu naferee ba pare boole na ci nag am am na nag jagle nag suñu borom na parce que cheikh way yombul déedéet tey tey tey ku dégg tey am nga tey lu am nga loo xam ne dégg nga ko am nga yëg-yëg boo yëg cheikh Thierno Ndiaye mooma dutu ku jóg way sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy tànn ñu koy way bu la tànnee ci tànnee fi nga bokk ci koy way hmm. hmm. xamal yaay kan xamal yaay kan xamal <laughs> yaay kan dégg loolu way jàng yomb na hmm. mokkal yomb na tare jafe jàng na mokkal na tari na li mu tari de tubaarkàlla neex na lool de du ñu sori ñun ak moom Babacar yi fi ndon la waaw jërëjëf. ndona la Baye Thierno yëf yi ndona la bu wér. ndona la ndona la bu wér. ci kër ndey la wala ci kër baay. sama maam Moodu Mbub mi daan jàngal Cheikh Moodu mu soal Karim Mbacke mu mag ma. Hmm. mooy sama moo jur sama baay sëriñ Mor Mbub. nga xam ni ñun lu nu am rek euh, xasi sëñ sëñtu yi moo ko gënal waaye lu am rek lépp ci xasiday yi la. Hmm. ci moom moomu laa doonee xasida yi Baye Mbub moomu moo jur sama way jur wu góor. mas nay jangal seigne Modou Moussa mbake mu ñewon Thiès ci kër soxna Fatma ga nek ci Thiès te Touba Thiès. Hmm. sama mam di jang jàng xasida wala xadd karab naa. Hmm. ba ndeysaan Cheikh Modou Moussa mbake mu mag mi daanu ab jël nit dindil leen mu meuna jakarlo ak Modou mbub mi mi mi di jàng xasida seigne Touba hmm. kon nak ci mom la ko donne yal na yàlla dolli ay leram ci dara ji waye bi ko donné jang nga ko. am na ñoo àndal tarbiya way wi ci ñoom ñana waaw ginnaaw doona lay nag tarbiyu waat naa ko bu wér ci loo xam ne nii duma ni man dongu maa ko am xëyoo ber sa yombul may ma mbakke xëyoo ber sa am na ñoo topp jàng ko ci ñoom awu leen bu dee kenn ñoo xam bu dee ñaar ñu xam hmm. bu dee limba yaa ko xam nga wax ñu ko waaw amna na jàngkat ñetti jàngkat yoo xam ne ànd na ñoom. ñan la. ku ñuy wax Serigne Ousmane fay jàngkatu xasaayit la nekkoon ci Thiès. waaw sama mag bëgguma lool. ak ku ñuy wax Serigne Ali Thioub ñoom ñëpp bokkoon nekk Thiès. Mm. ak kan. waaye ki nga xam ne nag wax dëgg yàlla lii mu nekk ci man moo ko def ci man bokk boo nekkoon yàq xel yépp dem ci moom Serigne Moustapha la bu Thiès. Serigne Moustapha men Thiès. Mm. waaw ñu ànd ci àdduna bi. fépp moom nga ñu indil. te jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba. Mm-hmm. rek tax mu doon koo xam ne ànd nañu moom fu nekk tarbi ci moom xasida yi yàlla dogal keroog bi may ñaanal dafa woo way juram moom ak ay soppeem ma mm-hmm. woo samay way jur ak samay soppe ñu jàpp bis bu mag ca Thiès ñëpp teew mu jël dollu xasida bu mag jëndal ma ay rajo jëndal ma ay baafal ni ma kii maa ko bëggal sam bopp léppul ma man mën naa ko mm-hmm. dama koy ber ndax euh, jàmbaari sëñ Tuubaa ñu di ko ci sant ndax loolu ñàkk ci ñaan la te yombul gaar mi gaar mi waaw toog ci daara di jàng mm. mokkalugoo dem ber sa daara mm. dabu ko de Baye Cheikh dama dégg loolu sëriñ Mbay ci tarbiyu ci ngay sakkanale ci tarbiyu ci lay barkale ci tarbiyu ci ngay mëna amé lo loo lilé bo tabé lée ci li ngay ne ak kula ci mëna fekk ci day xam dal ki tarbiyu na motax mu am li mu am ci tarbiyé ci ngay baxlé dafa wax ñaari mbir yu yo xam bu ci nekk dafa hmm ñor ñaar yan la mu ki ma way nga xamné ne sha allah mom ci bopam mom ma beral bopp la seigne Moustapha mom mhm. te bi may baratam ci bir mbégte ak xol bu leer ci la ma kon métier dal boko jangé ba mokal ko xaaral ñu ber lo jang rek na mokk bâche bu moké da ngay xaar ñu ber lolo am da ngay xaar nak ñu ber la ñu ber la waaw mais bo béré sa bop nak mom ya beru mom de beru kon dañu ko ber dañ ko ber biñ la béré dal ñun ak yow tay dañuy and ci lenn hmm. busra lana wa ci busra lana khatata di xasi dëkk seigne touba gu kemané eh, di eh, lu tax mu kemané eh, ndax seigne Touba lim ci wax ci sun borom. ak di ci julli ci mom ak sayyiduna Muhammad. sallallahu alaihi wasallam ken xamul nu mu tollu kon jox nako jógal. waaw jógal Babacar jox nako jox ñu bu sore naa rek mbay. na biir. بسرانا خدعتا نرجو الكرم لا اله الا الله علينا الجود والكرم كرم لما سالت علينا نزور الغرم بسر لنا خطتا مسالة لنا نلسر الرموز هي الحسنى ما تابا معا كفرا في رجب لا إله إلا تجي في البواخر وحدة ما نغرم وسرى لنا خدتان الجود والكرم كرم المسائل أرجو من الواحد الوهاب خالقنا لا إله بمبوئي خاسته تعجف بمبا لسول النفس في دارين وانتقم بسرى لنا خدتا جود والكرم لما سألت علينا لسرور وهو الحكيم تاج في بمبا كان وما يكن سعيا بامبا لا إله إلا الله بسرى لنا خدتا الجود والكرم لما سالك علينا سفن المقسل خجاك والله والبا لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الوجود الود الذي ما بابا لا إله إلا الله بشرى لنا خدتا من الجود والكرم لما زالت علينا لست جرمك سلقتك فمن مدنا موسى اللسان في خرسان لدل والخدم لا لا غلا تعالى الجود واكرم لما سال خجاك وفمن لو جل وابن بالمالك سمدا سمدا جاكيل لا لا لا بسرى لنا غلا صفا الجود وكرم لما سما لا تلا المقصد لقجاك وتوبوا له يا تسليسي في عجل وسالي وخبلا mawtil bawd wa nadam yàlla tuubolo ya Mustafa saltaki si fil ajal ay Mustafa sari ay Mustafa xala mawtil bawd ku dama kasal ko ca kaw tuubolo ya waawa salil tasli si fi ajal wa sari wa xambala mawtil bawd wa nadam Mustafa sari Mustafa xabla ma ummatu Mbakke yàlla lay jaamu wa sari wo xabla ummatu Mbakke dama lay jaamu wa sari wo xabla mawtil Mbakke yàlla lay jaamu wa sari wo Sëriñ Bamba jërëjëf eh, dama lay jaamu wa sari wo xabla mawtil Mbakke yàlla lay jaamu woo Sëriñ Bamba Jaañ Madu Mbàkke dama lay jaam wa saari woo xabla moo ana soppe xaadim rasulullah wa saari woo xabla la woo la la la wa saari woo xabla moo til ma doo na damoo ti yàlla tubboo la woo yaa سنيسي في عجل سري وخبل وتلبت وندم يلا تقول بالتسليس في أجل وسهاب قبل موت البدو شنكرم دار لربكم سهاب لا إله إلا الله وملتزمين ما يلقى في منزوزها ما بعد لا لا لا تقول يا للتسليس في أجل وسهاب قبل موت البدو سبي سيدي فاني نوسا ذلك فضل الله يؤتمن يشاء يلا كفل للكسر فلو كسا يلا سالك فضل الله فلو من يشاء فلو يلا كفل للكسر فلو كسا فلو سالك فضل الله يؤتمن يشاء يلا كفل للكسر fallu ak saa saalika fadlulaay fadlulaay yàllaa ko fal leneen ko sëriñ fallu ak saa fallu bàyyi mbéy yaa nuy tëral yaa nuy yërëm din may dërëm ah, yaa nuy tëral yaa nuy yërëm yaay jën waay yaa nuy tëral yaa nuy yërëm din may dërëm

rajab gëneelu yàlla fallu bàyyi mel na doxu dem ba Tuuba ku bëgg Sëñ Fallu Mbàkke Sëñ Fallu jar na loolo borom kasu rajab gëneelu yàlla fallu bàyyi mel na doxu dem ba Tuuba fallu bàyyi mel na gala Sëñ Fallu jar na loolo borom kasu rajab jaamu yàlla la. Sukkandu doxo dem ba Tuuba. Sëriñ Fallilu. Sëriñ Fallu jar Fallilu. am na soppi Sëriñ Fallilu doxo dem ba Tuuba. bala bàyyi benn galas. Sëriñ Fallu jar na loolo. borom kasu la jaamu yàlla la. doxo dem ba Tuuba. Fallilu Fallilu. ana soppey Sëriñ Falilu baatam ba neex na falu bisam ba leer na ñoo borom Kazu Rajab bëneelu yàlla la ba Tuuba Sëriñ Falilu Sëriñ Falilu jar na loola borom Kazu Rajab bëneelu yàlla la Abdul Karim baatam ba neex na sëñ Falilu bisam ba leer nañu borom Kazu Rajab nilu yàlla la samba Tuuba sëñ Falilu sëñ Falilu jàll loolo borom Kazu Rajab nilu yàlla la sëñ Falilu jirim ki di dundono miskini la illa la sëñ Falilu dem naa sëriñ Fallu dem na jëloon na réew sëriñ Fallu bayu benn jërim fi tëdd nanu miskin ni la illa la sëriñ Fallu dem na jëloon na réew yàlla la jërim gi til nanu magal leen sëriñ Fallu Mbàkke sëriñ Fallu Mbàkke Serigne Fallou Mbacké. Serigne Fallou Mbacké. kuy bëgg Serigne Fallou loxo ca kaw jirim ki dind na noo la ilaha illallah Serigne Fallou wa yi dind na miskin yi lofu na noo lofu na noo dem sa na re Fallou bayu benn xanaa jëmmam jangay jaay saay bërëg xanaa ku ci bëtam tooy xam ne di war la xanaa ku ci jooy jëmmam jangay Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Mbacké borom jannatul mahwa xanaa ku ci jooy jëmmam jangay jaay xanaa ku ci bëtam tooy xam la ci war na ah, ah, ku ci bëtam tooy mag sin saali wa baax ku ci jooy ah, tooy xam la ci war na

waay ku ci bëtam doy xam leen ni war na waaw ay waay ku ci bëtam doy xam ni war na Masaalikul Jinaan pare na pare ay waay ku ci bëtam doy ni war màggal ku ci bëtam doy xam leen ni war naa jaayiraani jaayiraani de bëgg naa daal bajara la de bëgg naa la fal ku ci bëtam doy xam leen ni war naa la fal ku ci bëtam doy xam leen ni war naa a ah, sëñ Babacar man da xaw ma Modou Mbuub sa maam. Hmm. waaye xam naa la yow. sët boo gis maam jëlay nuru. Hmm. suñ Babacar ñëwal. nawet bu nuroo maam ja wàcc na. sët bu nuroo maam ja wàcc na. man da xaw ma sa maam. suñ Modou Mbuub sa maam. mu sëñ Mouhamadou Moussa. mu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. xaw ma ko de waaye yow de. wan nga ñu wan nga ñu ko de ndax sët mooy maam ja Cheikh Thierno Sénégal yëpp bég nañu tey lu waral mbégte gi rawatina nag ñi nga xam ne nii mooy dëkk ba mu jógee di cees dëkk ba Alaaji Malick Maodo Mbaye nekk nekk nit ku yàlla baaxal dëkk ba sunu sang ba nekk sëñ Saliou Touré nga xam ne kenn tudd Thiès tudd bu xadd mu xaadimu rasuul yi te doo ko ci boole borom diine ju wér jooju la ku diine la ba pare yaru lool te yiw tënku nag la mag ña nekkoon bàyyi kook moom mu yor ko yor ba jekk lool moom tam ñu ko jox wàcce waayam waaye da ne xamoo daal sëñ Moustapha Mbuub maamam <laughs> waaw xaw ma waaye ku daqoog sëñ Moustapha mhm. moom xaadim rasul mi nga xam ne tubaarkàll moo jëlee raay bi njaareem yóbbu ko Touba bàyyi cerno kooku dëgg-dëgg nag ku làngoog sëtam bu wayee nii rek nii mu def noonu rek la war a def ñun de bég na loolu kontaan nañu Cheikh Cerno jay sëñ xaadim <laughs> hmm. loo gay deel waaw diggu Cees waa kër maam ëmën njëgën ca diggu Cees hmm. waa kër cheikh na cheikh saad bu cheikh abdul aziz ca diggu Cees ca diggu Cees hmm. naama ak njaboot gi ñoo ngi leen di nuyu waaye bàyyil sa xel ni dafa way ba ni ñu ni mus masaarikul jinaan pare na sotti na te kiñ ko jox nag Cheikh Ahmadou Bamba lañ ko duppee Cheikh Ahmadou yu Faye hmm. di jëwrinu sëñ Muntaha borom mbégte mi hmm. fii ci réew mi ndeysaan ci dëkk bii di Ndakaaru andi hmm. ci nag ak njabootu maam Cheikh Ahmadou Bamba yépp te doomi leer yaag doomu ruu yaag te taalibe yi luñ la moom la moom la tey moom mii mu andil ñu loolu lépp Cheikh Thierno dafa dëgg sëriñ Fallilou in mu xaadim rasul borom ay gu neex ka nga xam ne tubaarkàll ku mas a tàbbi ca ayam nga jàmm nga ca jële ak mbégte mu jaar ci moom wàcc léegi ci ñetteelu mosquée bi nga xam ne nii soo ko dee seet fii ci Afrique de l'Ouest ben juma rek la muy mazalikul jinan nu dénk ko nag mbokk mu yàlla baaxal wax nga ko legi talib khadim rasul ñu duppee khadim rasul di ci jëre ma ci sin mu yor ko yor bu jek lu ko war ci mbax rek mu def ko kon dal deug deug dal serigne mbaa xam nga ni mamam la Cheikh amdou Bamba cheikhal gestu wonen mamam ne ko duma la cheikhal fi mu ne ko fuma lay cheikhale Cheikh Thierno ko ëllëg bu ñu dekkee ci kanamu rasulullah ak yàlla ci la lay cheikhale kooku mooy Cheikh Amadou Mbackiou fay waaye dafa lu rëy hmm. mu ni jirim yi jooy nañu miskin yi jooy ndi ni sëñ Fallou ba pare jóge ci doomu sëñ Fallou muy hmm. wasilaam hmm. <laughs> sëñ Abdou Karim Mbacké mi jël ndaw ñi ci lëndëm yi indi leen ci leer gi waa jël ko ñaanal ko ni ko demal mooy yow sëñ Babacar <laughs> ñun ak yow dina am fu ñu jëm waaw fu ñuy bëgg jëm ceex ceru sa daara kañ nga ko ber biñ la béré wa biñ ma béré eh, ak légui nak mu ngi tollu ci seigne mustapha la ber seigne mustapha sek moma ber seigne mustapha sek wa ci Thiès ñu ngi koy ñaanal bu baax hmm. ndax def na ci man lu reuy ndax man ni ci sama kaw hmm. té loolu mu def ko ñak ki ñaan mënu ko maa ngi koy dolé ñaanal suñu borom defal ko guddu fan té wéral ko lool ci barki seigne Touba waye di ñaanal bu baax samay wayjur hmm. ndax sama wayjur Serigne Mor Mbuub mo ngi ni Italie di nu setan ndeysaan sam papa dafa sonu ci man lol euh, taxawuma hmm. ci ci branche bu nek hmm. di ñaanal bu baax sama yaay ji nga xamne ni moy soxna Fat Seck Mbay yalla na yalla dolli ay leram mom bi mu nelaweeg léegi matagul sax 3 mois yàlla na ko suñu boroom lu ne ci mom lu ne ci ñun rek moko def ci ñun ndax ñun ñu suñu papa bi ni luy ndaw sa sam papa dem Italie bàyyi noog suñu yaay hmm. waaye taxaw xasida yi ak bëgg gi ak sellal gi ak ak ak ak fonk sa jëmm taxawlu ci taxawlu ci ci ba tey alhamdulilahi rabbil alamin ñu mën a nekk ku nekk hmm. loolu grâce à sama yaay soxna fa Seck mbay yàlla na yàlla dolli ay leer barki démb laa jubloo ca xabroom ba ci màggalu Cheikh Modou Moustapha Mbacke gi hmm. eh, dem ba ci moom dolli ko ñaan yàlla na yàlla dolli ay leer ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim allahumma amin cerno jigen ñu bax ñangi nonu nak nag mhm. kii ndey ju yalla bax la ko yàlla dénk muy ajul mhm. sek bay mbay mhm. bo tàbbee ci ties ci jigenu jambar ñi ci la bokkoon bo tàbbee ci ties ci jigen ñi nga xamni dañoo tarbi seen borom kër ci la bokkoon bo tàbbee ci ties ci jigen ñi nga xamni ni watu nonu seen dom ba mu watu alquran ñu tabal ko ci xasaay di mu jang ba mokal deug deug soxna Fat sek bay momu daf ci bokkon kon yalla nako yalla yàlla yëgal ci àjjana e yi dal waaye dal tey daal Baye Cheikh euh, euh, Cheikh tierno ku tabbi fi ci émission bu mag bilé di nga xamné dal ki nu jàkkaar lol deug deug di serigne di serigne Mbaye mbub ci dom yi nu yar dom ju bax ji def ci bokk ba deug deug Cheikh bul sori hmm, fu nu jëm kër yi ñu momu ñu ko jigen ñi ñoy borom kër yi cey hmm. waaye gor ñi ñoy buru kër kaddu la ñam kat baat la ñoom boo ko tuxalee tooñ nga leen say mbay say boo ko tuxalee te Mamadou maa ngi lay xamal lenn hmm. woy jur wu baax lu baax rek lay am baax dañ koy nàmp seettëtët xoole li mu la wax ràññoo ñu sam papa tout tànk la ñu bàyyee dem waaye la mu ñëw waroon sàmmoo bu fi nekkoon sunu ndey sàmmee nañu noonu ci kàttanu sunu borom ba atteindre na bit bi sunu woy jur bëggoon ci ñun mbaa mu romb ko jigéen ju baax noonu lay def hmm. làq nag mu boroom këram te ku làq sa mu boroom kër ajanaay sa kër ci ajana kon ñun ak moom duñ sori hmm. am na lu xam ni daf ko mooñ mook Moustapha sekk ñu koy way danañ fa ñëw maag moom léegi ak yow dëgg yow da nga ñu ci ñamal wala doon ñu ci ñamal. waaw waaw yéen kay fu ngeen kupp rek incha allah war bi lu ngeen bëgg. da nga ñu ci ñamal wala doon ñu ci ñamal. dinaa leen ci ñamal ba mu baax ñamal ñu ci waaw barke borom Touba. Nabir waaw demal toog ñamal ñu ci. زيك يا كل لدى الكل خلجلات ولكن والتنيسير والنسم مزاياك يا كل لدى الكل خلجلال ولكن جلد عني سير والنسم مزايا يا كل sopp yaa rasulullahi maqaamatu xayril xalqi maqaamatu xayril xalqi ku sopp yaa rasulullahi maqaamatu خيابة فلتقرأ عن سورة مني محمد المختار لا كان مثله يا دوتل بنكم من سيدنا محمد لا خلق مثله لا خلق مثله نوي مقل بورم توبا لا خلق مثله عليه السلام عليه من لول أمر كلكم محمد المعروف معين نون هو بالاسم مصوص مصون عن الوسم مجيب مجاب مرتدا لكل داء مبي ومبوس إلا الغرب والوجم مديع جلا عنا دجنا مهلل مليء ومصوم من الناس والوهم مدينة مدينة شيخ الخدم دي وقت مخدمات العمدان مدينة مدينة مدينة علم منة لنا جريء ومن جلم ذنوب ومن سلم ما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 barke borom Touba. te sori. li nga ñu indi rëy na lool. Hmm. waaye ku la jàngal ñu ni sëñ Mouhamadou Moustapha sek te dongo day nuru sëriñam hmm. nga ñëw indi ko ci lépp ca yarba ba ca njàng ma hmm. ca ga ca tarika yàqul leen waay yàqoo dara dëgg mu doy loola ba wàcce la ni la fu ma war a dem ak fa neen fu ma war a egg ni nga fa dem di nga fa egg di ko weesu tey nga won loolu réew mi ak àddina bi hmm. ci émission tabala kon ñu nag yow du ñu sori dañ la naroon a bàyyi nga ñëw ci sëñ Saliou waaye déedéet hmm. da ñëw ci doomam ci toog béréb bi nga xam ni maamam Cheikh Ahmadou Bamba ko moom lu mu moom bérébu yàlla la lu mu moom bérébu rasulullahi la sallallahu alayhi wa sallam bàyyam yépp jaar fi làq ci ngërëm moom ngir tarbiye gu mu leen tarbiye hmm. bëgg doon taalibe rek bëggul lenn ci doon doom kooku nag mooy sëñ Muntaxa borom mi borom jàmm ji borom leer gi ci jubóog gaay jarama jëlnoo yow seex muntaxa liggéeyub sëñ bamba la ñor seex muntaxa daarul milaan seex muntaxa muntaxa gëm nañ Muntaxa liggéeyub Sëñ Bamba la ñor Seex Muntaxa ko sopp na ko

soppe Seex Muntaxa kennal gi nga kennal Serigne Touba Serigne Touba waral ay Mbàkke murid yi seen xel yi dal ci Seex Muntaxa la la la la kennal gi nga kennal Serigne Touba Mbàkke moo waral murid yi seen xel yi dal ci Seex Muntaxa muntaxa murid yi seen xel yi dal na ci Seex muntaxa murid yi seen xel yi dal na ci Seex muntaxa yàgg fi te wér Mbàkke murid yi seen xel yi dal na ci Seex muntaxa yàgg fi te wér Mbàkke murid yi seen xel yi dal na ci ñaanal waaw yàgg fi te wér Mbàkke murid yi seen xel yi dal na ci Seex muntaxa dëwër Mbàkke murid yi seen xel dama lay ñaanal waaw yàlla si dëwër Mbàkke murid yi seen xel dama lay ñaanal murid yi seen xel dama lay ñaanal laa ji sëñ Seex jëm fa lay lay murid yi seen xel dama lay ñaanal laa ji sëñ Seex jëm fa ma lay ñaanal waaw fi te wér Mbàkke murid yi seen xel yi dal na ci Cheikh Mountakha jëlal jëlal jëlal ndax Baye yaa ngi Cheikh Mountakha Bamba la ko jox waaw yaa gën ci ñun Cheikh Mountakha jëlal jëlal jëlal Mountakha Baye Fall yaa ngi Cheikh Mountakha Baye Fall yaa ngi Bamba la ko jox murid yaa ngi yaa gën si lu Cheikh Mountakha jëlal jëlal jëlal waaw ndax Baye Fall yaa ngi Cheikh Mountakha waaw Bamba la ko jox waaw yaa gën ci ñun Cheikh Mountakha jëlal jëlal jëlal Mountakha yaa ngi Cheikh Mountakha yaa la ko jox murid yaa ngi ne yaa gën si ñun am na soxna may Seex Muntaxa jëlal jëlal jëlal jëlal Baay Fall yaa ngi Seex Muntaxa waaw Bamba la ko jox waaw yaa gën ci ñun Seex Muntaxa la la la jëlal jëlal jëlal Muntaxa yaa ngi Seex Muntaxa

gaar mi dégg nga li mu wax. bu wér mu ni yaa fi toogal maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul. Hmm. yaay mbégte murid yaay mbégte jullit yi. Hmm. wax bu rëy boobu sëñ Babacar wax ko jëme ko sëñ Mountakha. Hmm. Cheikh Thierno. ndax bi xale bi daw na woon mu ñëpp. tey ku dégg tey li mu wax ginnaaw tarbiyu bu mu tarbiyu fexe na ba teg ko ci yoon <laughs> waaye mu tudd nag sëñ Muntaxa ilmu xa ilmu Cheikh Bachir ilmu Xaadimu Rasul mi nga xam ne séddale na. wallaay séddale na. cërale na itam. <laughs> te li mu cëre yi lépp landi na fi mag ñi tegoon seen tànk fa la teg tànkam. kon nit nag war nañu bàyyi xel lu baree bari ndax ni mu dëgmal màggal te màggal gi nu dëgmal Cheikh Thierno dafa tudd léegi Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall wane na daal am na nag yoo xam ne yile fàggu nañ ko ci dëkk bu mag boobule ñépp war cee bàyyi xel te boo tàppee nag ci dëkk boo xam ne bii dëkk bu sell la boo ca dem dem la te teg ko ci yoon gaan mi xam nga lan mooy tuube waaw garab la ci àjjana hmm. maam Cheikh Ahmadou Bamba dafa jënd turu Touba est-ce que du ñëw nii de hmm. daf ko jënd lu sellul bokk fa ci lu wér lu yàllawul bokk fa hmm. lu rasulullahi bokk fa mu way léegi ñu sëñ Muntaxa muy xaadimu rasul eh. foog na fa lay yam mu ni ki ci jiix maam Cheikh Ahmadou Bamba ci jaww ji seet ko ci garab bi xool ko ci njanaaw yi xool ko ci nit ñi xool ko ci lamb yi bëreerul wallahi wallahi kan la hmm. mu ni maam Cheikh Ibrahima Fall hmm. mu indi ñu Cheikh Jëmb hmm. kon indi nañu sëñ Bamba indi nañu maam Cheikh Ibrahima waaye léegi Mamadou waaw xanaa din ko laaj moom ay projet xam naa ni Cheikh Thierno projet yi moom xam naa ne léegi dina dinañu ko leeralal waaye nu ndokkeel bu baax sunu sang bu yiw boobule di soxna Bali taxa baax lool mi nga xam ne Cheikh Thierno junni taalibe yi maam jaara du caaxaan déedéet romb na ko nga fexe ba faggu lépp loo xam ne li lée dañ ciy xéwlu nga fexe ba tubaar tubaarkàlla di ko faggu te def ci te def ci te def ci farata mm. yemoo ci nga fexé tabarakallah ba li ñuy sol lepp nga fagu ko tabarakallah ba dara hmm bo léegi tabarakallah nuy jang jang mu wér te sel mhm. ba ko ci xel ba ko ci nek ko ci xol sa xel dem ci mam jaar jigen ji tam jar na ñaanal yalla muy soxna Badi muntaha mom tam ñu koy ñaanal mhm. yalla na yalla guddal dem ci sam ko Cheikh la mm. Seydi bakkar joju ñu tuddu muy soxna muntaha waaw bu yagul ci sëñ muntaxaa bi nga xamni ni mom la jang hmm. kérok bi Mamour Lo déggé way wi tuddu nga ko yalla baxal yalla nako sun borom defal gudd fan ak wér hmm. da ko jël daan may wo téléphone dal di reetaan waw dal koy envoyer soxna ci ba paré fotol ma ko ni ma agsi na ci moom seetetetet ni ki nan mako indil maa la ko wax bima ma suba la magal ci salam ba ci Touba ci daru minam hmm. booba maa ngi ak kurel gi ndeysaan te avant bobu dama ñëk defal teranga muy keroog bi ma woyee soxna jaara kaset bi nga xam ne nii moom la Télé Futurs bii di teg waaw yàlla dogal maam jaara bi bi ma koy jàng hmm. dem ba ca poroxaan ni ah maam soxna jaara de moom laa woy woy wii ñëw kilifa yi toogoon fii ni ma santal yàlla bu baax ndax soxna baali tey daa ñëwoon fii ci barab bi bi ma bi ma bi ma rajesee ba pare ñëw nag soxna baali mu ngi may seetaan mu may dégg hmm. ni ma alaaji mi mu àndaloon ni ko Serigne Mbaye Mboup mi indi ko sama kër léegi maa ngi wàcc jëmi Serigne Touba keroog teraanga gul teraanga jinne defal na ma ko li gën a sedd sama xol ma ma gën ci am maanaam rus sax ngir kii hmm. dem ci waañ wi di defaral boppam ay ginaar yoo xam ne ay pitax ak damay bañ sax maanaam siiseen yi xam nga am na nekk moom rek laay bañ <laughs> teraanga ju nekk soxna bàyyi defal ma ko hmm. may wax ma woy Serigne Mountakha mu wóolu ma ba ma ah. ñëw mu wóo ma ba ma ñëw maam mu ni ma Mamour Lo moo ma dégtal lii ni ma jàng ko ma dégg ci saalam ba bindee suba la màggal ma jàng ko keroog teraanga ak addiye ju bari la ma soxna baali bunta xaa jox maa nga koy dollee ñaanal bu baax suñu borom defal ko gudd fan hmm. gu ànd wér ndax ku nu ku nu jàppale la te ku nu taxawul la te hmm. lépp suñu borom nag mu ngi ko jaale ci wala falu suñ muntaxaa bi ak hmm. sëñ Mamour Lo mi nga xam ne daa dégg woy wi ba tax mu ni naa ko dégg loolu tamit ku ñàkk ki ñaan munu ko baax kon nag ñu ngi koy ñaanal soxna baali mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaw euh, Cheikh Thierno xam naa ni balaa jàll ci procès bi waaw dinaa la wax rek ñaari baat ci sëriñ Mamour Lo moomule dafa baax kilifa gu baax gune war ngaa sàkk ku baax ku nekk ci sa wet mën na doon mën na nekk sa tànk mhm. ndax saamaane Amadou Mbaye garmi nit ki mën a kanam mën na kanamam ginnaawam la mënul dara mhm. waaye Cheikh Mamour Lo boobule ak a baax lu mu war a jottali lu mu war a jottali baax mu àgg ci tubaarkàll ci soxna yi mu taxa Cheikh Mamour Lo moomu looyeen boobu le mi ngi koy def moom itam mën nañ ko ñaana loolu yàlla sàmm ko te guddal fan dafa am cer cer cer na mbaax yoo xam ne yi rek amiin su ca gor tabbee fi mbaax gi fi mbaax gi saxee rek tabbal ko fa looloo waral dëgg-dëgg ñu def entre boobu mu jëm ci moom Cheikh Thierno Ndiaye aju Mamadou Mbaye gaar mi jërëjëf hmm. gaar mi diine ku ci njëkk hmm. du jigéen <laughs> moo ca mënoon alalam moo ci njëkk hmm. jaama moo ci njëkk daanu ñii ñuy way ñépp ku leen meññ jigéen Cheikh Thierno kon bu soxna baali melee bu mu ñu jaaxal bu mu ñu indi laneen xel daf ciy war a mën a dal hmm. ñan ñoo ko meññ hmm. lu meññoo ci maam Cheikh Ahmadou Bamba nii ngay mel mais ci maam Jaara nii ngay mel Cheikh Thierno xam ne ak a yombul <laughs> man nga judd judd bu reuy nga teunku ci nga teunku ci fu reuy waye xamé ak ragné nak tubarkalla nak tubarkalla mo yombul soxlu ci dafa xamé ba para ragné ba para nak takko ci yar ak ñaka a beew ak xam mom moy kan xam nu juddo yombul Cheikh mais limu limu bëgg mom lay wuti. <laughs> kon ko ko bëgg mom lay wuti jaar wallahi wallahi mom dundeewul maam du Ahmadou Bambaye sama maam day xëcc nu mu doone taalibeem dëgg ak ak nu mu ko dundee day tarbiya ak nu mu ko dundee dëgg la ci maamam jooji xam ni dafa jeex ci yàlla ak rasulullah sallallahu alayhi wa hmm. ñëw na hmm. fekk ma ci béréb xam nga mooy yaay Assane Seck oustaz waaw lool mooy ndeyam mooy ndeyam <laughs> maam Thierno Yogo maa la féete woo dëgg la te loolu jiitu na lii dëgg la way ñëpp la féete woo dëgg la way lii ñi yëkkati fii bu ñu demee kër maam Seydi Hadj Malick yëkkati fa kenn du leen génne dëgg la déedéet bu ñu demee kër maam Cheikh Dethialaw yëkkati ko fa kenn du leen génne kenn du leen génne dëgg la de bu ñu demee kër maam Cheikh Abdoulaye Niass yëkkati fa kenn du leen génne bu ñu demee kër maam Alaaji Thierno Dramé kenn du leen fa génne kon lii dëgg mooy dëgg Cheikh Thierno xamna dal dañuy laaj nak serigne mbay lan ngay wajal ak tamit yeen projet yo nga xamne ne ño nek sa kanam te te nga bëgg ci ndimbal ak njàppale waaw koy jërëjëf hmm. serigne Mouhamadou Mbay Garmi hmm. borom na bir ak suñu xarit suñu soppé bay Cerno Ndiaye hmm. wa borom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul deug <laughs> la nga lay dolé ñaanal bu baax mouride serigne touba yépp nga lay bëggé ndeysaan projet yi nak ci bu jëk mooy album bi nga xam ne nii moom la ñu génnee. Mm. ci màggal gii di màggal deux mille vingt trois. mu doon six titres. Mm. yàlla dogal takraaru ji nga xam ne moom la ñu jëkkee. jàng nañ ko xasida ak Limayin Bachir ba mu jeex tàkk. est que te dafa am loo xam ne nii da ngay gis ñoo xam ne dañuy nekk ci leneen ñu di leen ci jàppale ñun jàngkatu xasaa yi di nag. war na noo takk taxawlu ci jàppale ñu. Mm. ndax da gis koo xam ne nii day dugg studio. jël alalam def ci. Hmm. gis ko xamni bu studio ba pare day dem def vidéo def clip. Hmm. clip bo xamni ni ay millions nga ci def té lépp ci say dooley bop la. ñun nan nu dimbali té dinu jappalé hmm. ndax ci khasside yi la nu nekk. ndax seigne touba khadim rasoul kat da doon wax ne yéen jàngkatu khasside yi yeen yi yeenay samay doomi xol. Mm. wax na ko sëñ mm. Modou Moustapha Mbacké ni ko seen yéen yéen a waaw ndax xam ngeen seen seen seen doomu baay yi ngeen xam ne bokku leenu sant cey leen ko waxee mu la mooy jàngkatu xasida yi bu nu bàyyee suñu lépp nekk ci xasida yi sëñ Tuubaa bàyyi maanaam projet yi nga xam ne mooy album yi nan ñu ciy jàppale te ci jëmmi yàlla rek tax mm. ñu def ko ci màggal gi bëgg nag mbokki taalibe yépp am ko ca màggale ko ndax dafa bokk ci samay première jéego

ku amul ñetti junni wala vingt cinq mille doo am benn album hmm. waaye kilifa gu baax guy jàngale daara ji ci ca sëñ Abdou Gueye ngi koy doolee ñaanal ab jarbaatam hmm. sëñ Modou Sylla dañ dañ ne maat kem ka nag euh, jaayoo ko dee ci laaj ñaar téeméer bu ko defee nga mën ci tourné seen clip waaw galago nabi la waaw galago nabi <laughs> waaw kon nag muriti sëñ Touba yi nan ko nan ko ut daaj bi ma daaj ci sunu bàyyi ndongo Thiam yal na fi yàgg loolu te wér nga xam ne quatre-vingt-seize ay 92 boo sana setan fi ci magalu Touba gi ñuy waajal dang koy deg muy muy jàng ray yo xamni ni nii kaw wallahi bokkaat na ci samay projet moy hmm. njangum khassida seigne Sayer Ngom yalla na la sun borom defal gudufan fan gu ànd ak wér lima hmm. ma li neex ci yow moy da nga siwe khassida nit nit kula xam ci khassida yi la la xame ba pare nga fonku ko tie ko folklore woko hmm. te lu mata baye xel sama Abdoulaye ñang sama maam Moodu Mbub mii ñu doon wax. Hmm. alaaji mu sam ba ci sunu baay Fallou Ndiaye. Hmm. sunu mag jii di Serigne Khadim Gueye. ñooñu day xaside yi ba ci sëñ Moustapha Seck xaside yi folklore wuñ ko. déedéet maanaam tatagal nañ ko te bàyyi nañ ci xel Cheikh Ahmadou hmm. Bamba Khadim Rasoul. loolu nag su ma ci mënul cent pour cent dinaa ci def sama kéemtulaay kattan bu xaside yi ñu jàng ko ni ko sëriñ bi bindee manam diko njang njàng wo xamni ni ne nii. mu sel waaw njàng mu sell. Hmm. moo xam ne li fi mag ñi lepp ci lu bax nañ ko dolli mu yokk ca kaw waaw jaamoo ko yàlla. jërëjëf ko yàlla. Hmm. waaw ndax li xew legi tamit nang koy maytu wallahi di dem ci. khasside yi di ko jànge foo xam ne nañ ko seigne bakki soxna lo waxon nako liko ni du ngeen ko jànge fuñ ñu ko soxlaawut xaside yi nang koy jànge fuñ ko soxla babakar Mbàkke marchandise ci dul forox la garmi mi du yaqku hmm. amul prix. Hmm. barkeelu la am. dëgg la woy galag gi muy galag. ku ci ne te dëggoo ko muy dëgg ci yow. jaamu yàlla la. Hmm. mais Cheikh way rasul lay hmm. sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla la. nga ci jaamu yàlla di ci am tiyaaba di ci am ti yóbbu. te wax nga dëgg de. tiyaaba ak ti yóbbu. mi jàmm ji. cey ci bëgg ñëpp hmm. wutal ko bis ñëpp taataan seeni nopp mu ni bis sàngam bisu xasaayit yi laa ko sàkk ko yàlla sunu borom jagleel ko li maam Cheikh Ahmadou Bamba bind gàllankoor gudd fan moom nga dégg ci wayu mënaan la te naan ci xasida yi rek xoolal loolu mbégum Serigne Touba dëgg la mbégum Serigne Touba hmm. moo la ñor yow Cheikh Mountakha billaahi nga dégg bisub journée xasida yi di mu génn tàllal ñaari loxo yi ca kaw naan ci xasida yi rek ci leen mën a béggale sëñ Touba gis nga béggum sëñ Touba hmm. xajul ci kenn nit ku weddi laajal maam Cheikh Ibrahima hmm. Fall ba ci sët sëtaatam laajal Cheikh Issa Diène hmm. laajal Cheikh Aliou Touré borom Bari Kalla Mbacké ba ci say sët sëtaat Cheikh Mor Faasa baaxum borom léppay baax ak keneen ak keneen borom daaru baaxum mu nga nit ñu baax ñooñu bàyyi sëñ Abdoulahat baaxum ñu ngi koy doolee ñaanal <laughs> yàlla dogal ñooñu mbégum sëñ Touba moo ne ci ñoom ba tey seen sët te ki sët ñu di leen raamal fu nekk te nit ñi duñ ko sañ a bañ. déedéet loolu nag liggéey bu sell la ak xaside yi. Hmm. projet boobu dañuy wax ni ni ni ni cent ans la décade de an waaye de incha allahu rabbi ñu ngi ñaan ci daraje Sëriñ Tuubaa yàlla may ñu kattan. Hmm. ak xéewal ba formation yi xale yi nga xam ne ñooy ñooy dernière génération yi. Hmm. incha allahu rabbi ñu gën a tatagal xaside yi di ko jàng njànginu sell xanaa xamoo ni. Sëriñ Muntaxa du déglu lu dul xasida sëñ ba Abdou Khadir du déglu loolu xasida keneen ak keneen ak keneen ak keneen mm. waa xasida yi bu sellee moom la ñuy teg seen oto di ko teg ci seen i bifeur ci seen wet di ko teewlu mm. waaye bu folklore wala njàng mi xaw a am nu mu folklore rek génn nañ ca loola mm. te mag ñi ñii ma tudd léegi ñoom defe woon ko woon noonu kon loolu lañ bëgg ñu taxaw ci di ko njàng njàng mu sell ku la ciy bëgg nag na la ci bëgg waaye ku la ciy bàyyi na la bàyyi nga di sa sëriñ ki woote ni ki woote nga xam ni caaxaanul caaxaanluwul dafa sel selal billahi hmm. Cheikh Thierno dafa wax lu reuy te gar mi dafa nank dama lay wax waw suma lay top nga genn fi jëm dakaru awni man mauni aw nii maa nga jëm yoo fag fanen du ñu gisee duñu gisee ba duñu kër <laughs> duñu gisse ba kër ma ba kër yombal basar duñu gisse Cheikh Thierno waaye Cheikh dafa wax lu lu rëy loo xam ne Sénégal yëpp ak yi appel bu mu lancer te ñepp war ci baye xel barna lo xamne li ñu wax ko ci milieu bo xamne bi du milieu jaaduwu fa wala ñu waxé ne ko wala ñu waxé ne ko waxin wo xamni wi fi ñu ko waxé du fi lan ko war a yow nit du wasare boppam bay Cheikh Cheikh Thierno comme nak yaangi ngi pour révolutionner lolu message bu fort la bo xamni bi le bu yow bu ci jóg ni nga ci nekk te di ko defee tënku ci tamit ba ku la ciy fekk-fekk la ci ku lay sop la ngir lolu kuy bëgg leneen tam bëgg leneen bëgg bëgg leneen waaye yow daal ci li nga war a nekk ndax li nga nekk loolu moo tënku ci dëgg loolu maa ngi ci xasida yi loolu moo tënku ci dëgg tey tey wax mbokki taalibe yu ñuy mm. dem ci youtube bi tappe Serigne Mbaye Mboup tournée yi ma def international ndax man mm. ah, man jot nga man man bi ma njibisee ak léegi mm. yàggul ci ci ci ci ci bi ci national bi ndax yàlla dafa dogal sha allah yàlla nañu yàlla lafal cat mag gi al bi ak ak yi amul fun ci tok ba yow ma la sooraay ji tabaski ba ci suba ga la gennon sama kër ñi may xam ma hmm. xam nan lolu bu wër hmm. ki nga xam ni fuñ mëna dem mo ñu yobbu ci xasside yi yor otoom di sonn ci ñun hmm. ñu ngi koy dolé ñaanal bu baaxa baaxa baax muy señ bu jaak diko ko yokku te ak ndam ndax momit cadre bobu ko ci kuma ci taxaw la ci am problème dem ndeysaan sama oto bii may dawal sama wayjur wu góor moo moo moo rayante jaayante ma am ko ba liggéeyu xasida yi du tardé mukk ma def ci lu ma man mm, mm. kon ñu maanaam murit yi Sëñ yi ñu ngi leen di dollee ñaanal bu baax bu ñu demee nag kii tub bi incha allahu rabbi ci premier projet bi mooy mooy màggal gi moom maanaam takaraaru ji moom mooy mooy takaraaj waaw na ko ñëpp jee waaw mooy min xabiiti baawan bi jayi wa sayatinun wa akdaaru naan axsamtu billahi inni li nabi abadan sooba boo demee dafa dafa dafa nekk ci xasi dëgg li maayin bashir nga xam ni basiratul xal bi sa xol bi ci boppam lay defar ak mbégum gën a bëgg sëriñ bi nga nga nga teg ko mu mu wër ci àdduna bi yëpp te boo demee doonu li nga xam ne ay ñetti minutes la mu jeex di nga di nga déglu ba mu jeex. takk mm-hmm. takk tak takk. boo demee wala falu sëñ Muntaxa bi. waaw tagraaru bi doo ko tagraaru fii. tagraaru ko tagraaru fii de. non na ko tagraaru fii def su paree jóg dem fële. tagraaru bi waaw tagraaru bi. waaw tagraaru bi day tàmbi ci de. nu mu ñuy def. Cheikh Thioro tagraaru bi maa la ko ñaan. adiyee sëriñ Bamba. yaa rabbi salli alal muxtaari warda bi. waaw tagraaru ko ñu bokk. anum ridaan أودن وتكرار يا ربي سلي على المختار ورد بي يا ربي سلي على المختار ورد بي نبردان نوام أودن وتكرار يا ربي سلي على المختار ورد بي هنريدان لهم عود وتكرار تكرار تكرار تكرار هنريدان لهم عود وتكرار نعم لا أقسمت بالله إني للنبي أبدا خل وعيب وما أباو يا أباو بخسي دقي تك تك تك تك نكون يبقى خسي دقي xam nga ñu ñuy am na lu ñuy dégg Touba ca kanam am na ñu ci dafa ndànk Babacar de am na lu ñuy ci Touba ca kanam ah. ñamal ma ci tuuti parce que yaa wax sëñ Mountakha lu rëy ba pare bëggoon ma jiitalal sëñ Saliou man la maa bañ sëñ Mountakha ngay indi doom ji xam ni sëñ Saliou gërëm na ko doom ji nga xam ni sëñ Abdou Lahad gërëm na ko Cheikh Abdou hmm. Khadre Jeylaani Mbàkke gërëm na ko Cheikh Mamadou Bachir gërëm na ko Cheikh Fallou gërëm na ko Baye Cheikh Mamadou Moustapha gërëm na ko làq na ngërëmu maamam Xaadimu Rasul wajalila maskanitu babat misl ismiha bi jaayi xayri man abat wajalila حسكيت بابا مثل من أباك وسلي منبات علي عليه السلام في هذه وصحبه سوي سلام أنا علي أفضل السلام سلالي وسقي سلسلان واضرب سرادي خاتع عفزك علام داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنوني هي بك وجمنا عن الفتون وان فرار الخلق والرسايا والجن والسيطان والبلايا يا الله يا حافظ يا ذا يا فايخ الخلق من بالخخر نسي وديني سمعني والولاء هو مسكن لك وديخة اللبان نسي وديني بدا وديقة اللبات نفي وديني ثم أغني والولد لي والولد مسكني لك ودي ودي الوات وديني ثم أغني والولد لي والولد مسكني لك ودي ودي رسول الله wala ali wala wala la bamba wala laka wadi laka wadi rasulullah lo ko yalla la ka sa dunya ma ukhra elen ko jaajo de cheikh bamba fi ma anidhi fi fi rasa ya ko wasifat عذاب النار أن جملة ما جملة ما الله حين من لا يسمى وجملة إخواني من أقاربي فتني أو في دهدي ولا والتزري في سلام سلام أليكي وأبليا وأبليا صف رسول الله تلقي في صلاة نزابا أليكي وأبليا وأبليا صف رسول الله تلقي في صلاة نزابا أليكي وأبليا وأبليا صف رسول الله تكفي سلعتني صعبا ndeysaan barke borom Tuubaa waaw aju nee na kontaan na sunu sang sunu xarit sëñ Moustapha Mnous sëñ Abdou Khadir Mbacké sama bos baax lool sama sang bu tedd boobu ti yiw lool xamna ni bikna na nu ndokel nak mag mu yalla baxal di seigne mam Cerno bu daru marnan mu bokku ci kilifa yu teddi te bax yalla ko fi yalla baye mu yalla yalla guddal fanam te may ko wir and ak wir lol Cheikh Cerno dafa am ño xamni ne ñi le fi sharia nekkon fi lañu tek sen tank tànk ñu ben yoon te gor gu tedd gogu ci la bok ñu ñu don rek lañu don boko sene muy dem bu ko ci lacc loy dox ci lu bax rek la jëm ak lu gën ak lu maam xaadimu rasul bàyyi te mu teg ci tànkam moom tam nu ñaanu ko yàlla guddal faram te te sàmm ko Cheikh Thierno Ndiaye. xanaa maag yow ak maawo ak gaa yi. Hmm. dañuy àndandoo déglu sëñ Saliou bu dee ñaari baat sax ñu soog a dellu si. waaw waaw kon mën nga mën nga tàbbi ne la sëñ Babacar moom day tëjale. seet yow bala yow dafa ndànk parce que yow daf noo bëgg a gaañ de li gars yi naan doy nga waar ëpp nga waar. non non non non non dëgg la de Cheikh Thierno barki bi lay la lësi wax ma boole maama ak Amadou. ak ñi lay seetaan ak ñii di lay jën sa kàddu gu mujj lan la bala ngay indi sëñ Saliou. sëñ Saliou boo indee sëñ Saliou. dana daanu ma daanu ñëpp daanu du kenn du yëngu. foofu la noo tëjee mais Thierno maa ngi lay xamal dara. wax wax ma ko. bari na lu jóge ci xol. ci xol la jëm. ci xol lay tabbi. te lépp looy def. te yow mi koy def neexu la ah neexul ci yow xamal ni ñu koy dégg neexu leen waaye moom boo ne ko jàkk da ngay xam ne lii ci biir xol bi la ko gaar mi loolu tax góor ñi mën ko yëg gaar mi mbaa xam nga ni way yow mi way yaay njëkk a daanu ñi lay déglu ah waaw waaw ñoo la doog a mën a bu la daanu lul du daaneel kenn te way neexul way yaa neex waaw kaset bi nag nga ne kaset bi benn lam la benn lam benn lam waaw mais kaset bi nag na ci ñëpp jàmm benn lam benn lam du yëngu ci loxo xolal li ko dar waaw moo wayi woy yi neex Cheikh Thierno cassette bi Cheikh Thierno album bi mu génne hmm. ni daf ko yóbbu def ko addiye Cheikh Ahmadou Bamba magal. Hmm. waaye gars adiye addiye ji egg na waaw waaye nañ ko delloo njukkal jox ko galagu na bi ndax ñun ñoo ko waroon def te defaluñu ko te Cheikh Thierno wax dëgg yàlla ñaar téeméer rek lañ koy lañ koy jox galagu na bi ñun ñëpp kooku daal yëpp kooku daal gaar mi ñëpp murid lañu bépp murid muridu leehi muy muridu leehi ni ma jëm ca yàlla sa boroom le même Cheikh de Bamba Nous, ñun dinañ la 1000 francs Si vous voulez, jox la 1000 francs vous ma numéro numéro bi 77 la. Ah, le numéro bi Oui, le numéro bi. 77 la numéro 223. 94 94 91. waxaat ko waaw 77 la kooku nag Maodo ñu ngi la koy ñaan. waxaat ko na nga ko ko bindal sax faf. waaw 77 waaw maa na ko na ko def ci waaw bind ko rek mbay faf. waaw 77 la waaw murid yëpp barkeelu ci. 223. murit bu ci nekk ñett téeméer lañu laaj ci bande bi te dafa am whatsapp boo demee da naan man maa bëgg kasetu Serigne Mbaye Mbuub bi takraaru ji bees ji ci am Serigne Fallou jéeg yëpp a ngi ci biir eh mm. waaw dox dem ba Touba Serigne Fallou jar na loolu jooju ma doon way mu ngi mm. ci biir kaset bi ak daaju busra naa ik fi nii xasid ak fi nii mm. ak daara yàllaahu sëñ Muntaxa bi moo ngi ci sëñ ngi ci ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen barke borom <laughs> Touba Mbacke sëñ Abdou Karim sëñ baaba moom sëñ Abdou Karim Mbacke woy naa ko woy woo xam ne yàlla na ko suñu borom defal jàmm keroog bi waaw yaay sëñ Abdou Karim yàlla na fi yàgg te wér waaye li bëgg tax te ku ci ñëw sax lima ma woy sëñ Abdou Karim dinaa la ko jox eh, insha allahu rabbi eh, mu doon buuñaa bi eh. waaw Pape Babacar Ngom waaw Sédima ak Babacar Ndiaye mm. ak Askia mm, Touré mm. sen 1000 francs na dem de. deug la ku ci nena nga joxal sa famille yëpp ak say mbok deug la muy 77 ci takraru ji muy 77. 223 94 91 bo defé ñaar témèr ba nopi demal ci whatsapp ba ma jox la takraru ji. ba lepp lepp lepp lepp lepp nga mëna am album bi kon dal magalu ren gi daal waaw waaw def ko addi sëñ ci gi waaw joroo benn joxe 1000 francs waaw magalu gi dal ñu ngi ñaan daal ku waaw yow koy woo ci takaraaru waaw ko ci woo mu ñëw mag màggalu ren gi daal waaw koy woo ci dañuy ñaan dara kuy taal sa oto di jëm Touba na ca takaraaru di jib barke sëñ Touba kooku daal moom la ñuy ñaan wax ko nag ñepp nañ dugg jënd fépp di wax nag sëñ Makhtar Diaw doomu ndar bi sëtu Njaay Saar waaw borom kade ci ndar mu sëñ Mbàkke mu sëñ Babacar Mbàkke mu kabaro oh! takoraa takoraaru gaa ngi noonu ren daal moom daal dëgg-dëgg kuy kuy dem rek na nga takkaraaru. waaw takkaraaru waaw na nga takkaraaru. waaw kon Birane dina takkaraaru. waaw Birane Ndour waaw Birane sama xarit bi waaw Njaga dana takkaraaru. Njaga Buuba dina takkaraaru. ñëppay takkaraaru takkaraaru waaw Maawo Maawo sax nañoo takkaraaru. Maawo day takkaraaru mu jënde ko ceeb. ñëppay takkaraaru. ñu ñëw ci takkaraaru ji léegi nag di ñaanal kuréelu xaside yi may àndal. ndax benn lam du yëngu te maa ngi wóor ci jëmmi sëñ Touba ku xool image bi gis leen ñoom ñii mm. ak njàngin wi xam ne ñii dañ ciy dëkk répété wuñ sax dëgg la te ku leen gis fii ci direct bi boo demaatee di xool sama tournée yi kenn ku mm. ci nekk koo gis xar kanamam mm. du tey nga ànd ak ñii ginnaaw suba nga ànd ak ñeneen man ñi ma daan àndal ci bi ma Moustapha ñaanale ba léegi ñoom ñoo ñoom ñoom laay àndal ma leen di dollee ñaanal bu baax a baax mm. Serigne Sala Diouf mais sama baay la waaye daa bàyyi lépp ànd ak man macha allah chaque jour te noonu rek la koy defee ak moo mm. Modou mbub sama rak sama bras droit mooy numéro 2 bi ak xolo gis nga yoonu murit xale yi ñoo ma Babacar gis nga Modou bàyyi Modou Fall mais bu yëkkatee nga ni Serigne bay Mbuub la mm. numéro 2 baa ngi ne bàyyi góora a moom it ma nga ne ñëw de mbay dara xew ak waaw waaw ak ak Abdou Xuma Mbuub waaye Serigne Moussa Gueye sama xarit bi nga xam ne borom oto bi Demba ci sëñ Mbay Mbuub numéro la moom saa bu yëkkatee xel yëpp dem ci ci ci sama jëmm maa ngi koy doolee ñaanal bu baax a baax a baax a baax ñu maase am ngërëmal sëñ Tuubaa ndax taxawu na waaw kooku mooy mooy borom veer yi mooy sëñ Demba sëñ sëñ Demba moo nekk noonu kooku ci sëñ Mbay Mbuub numéro 2 yi la ah, ah. waaw gaar mi waaw gaar mi am na lu ñu laajul Babacar waaw mooy baba Babacar kan, géwal nga wala. géet wala tamit man man man man man gis dégg nga Baara Mbaye mi ni tëgg Baara Mbaye waxuma Baara Mbaye mi ni mi ni jur sama yaay Fass Seck Mbaye loolu cosaan la Cheikh Thierno man mbuur gii mooy sama cosaan tambour major bu mag bii nuy wax Ndiaga Sarr mooy sama ndijaay Cheikh ah. Cheikh Thierno maa ngi leen di ñaanal bu baax ah, waay géwal <laughs> boo dégg li wax nga xam ne du géer waaye géer gu yàqu mooy raw géwal de waaw di ñaanal it uh, sama ndijaay yi nga xam ne moo nekk mbuur Duudu hmm. sama magu yaay wa nit ku bax kérok bi nga yëg Bombardier kérok bi nga koy jial ci Papa Dia hmm. man nga fekk may jang direct khasside yi te bërki dem so bisu bërki dem bi Bombardier bàyyi na léppam ñëw ci te taxawuma bëgg ma lool hmm. Bombardier de ñaari minute mom mënuma ko déglu ma ngi koy dolé ñaanal yalla défal ko guddu fan gu and ak wër waaw Baye Gora mi nak moy numéro 2 bi moy sun bay mbub numéro 2 euh, bi bay Gora mi nak sama goro maa ko may jabar ah wa Sénégal léegi maa ko maa ko may jabar euh, jabar ma nga rek ñibi waaw ci moy am mbay maa ko may jabar mu nday mbay Ah, ami mbay maa boo ami mbay maa ngi ko ndokkeel moom tam bu baax a baax tam tamit ta na góorgóorlu Mamadou ko looy tàggoo te di leen sant bu baax ma daaneel di leen sant tey dañ la bëgg a tëjee rek ndax yéen yéen yow lañ bëgg a tëjee waaw ndax yéen hmm. yéen nit ñi nin mel ci yéen hmm. dëgg-dëgg affaire yàlla suñu borom dëgg la wallahi wallahi billaahi wallahi wallahi ñëpp a leen sopp bëgg leen ba pare nag fonk leen te te di leen te di leen déglu yaw dafa am sama benn maam joo xam ne nii mm-hmm. wóor na sëñ Tuubaa bu ma la wonoon fotoom tey jii da ngay defe ni sa bopp nga toog muy Baara Mbay dëgg la feece ci sama kër maam gii may wax benn ngéen benn ngéen sama yaay dalaa bëgg ma dugg foofu sax wallaay dëgg la waaw yàq émission dafa am nu meloon ci yaw wallaay xam naa loolu day ngay gis mu taxaw na ay ñun ñooy seen i mbokk sama sama ndijaay baare rek la koy xoolee seen i mbokk ci àddina ah, ah, buggu buggumaa taxawul foofu dama koy ñaanal rek sa su nek rek ndax ah. mom waaw doyna war waar daal sant yalla sant yalla sant yalla bax fuñu jëm seigne saliw di ñaanal bu bax Mamadou Mbaye Garmi mom mhm. sama xarit la sama soppe la mhm. di ko dollee ñaanal yalla defal ko gudd fan gu and ak amin amin allahumma di ñaanal bu bax borom Télé Futurs Médias mhm. muy muy muy Youssou Ndour li lepp mom la Sénégal ku naafiqul war nga ko meuna a ñaanal employé yi nga xamni xam nga bay Fall yi taxaw wallahi nga yor ci mille et quelques personnes jël sa alal di len taxaw taxaw go xamni mo biran dur ak Njaga hmm. fàttewuma len ak buuba waye ak buuba Ndour sama xarit ba koko may jàngkatam buuba Ndour <laughs> waaw mom sama xarit la mom quartier général bu nek mok pap Cheikh Diallo dañ nan na seigne mbey Mbuub ñew par hmm. force waye nak di tëje ci Maawo Siise mi nga xamni yit aduna ñoko amé ko man dama koy ñaanal du ma yàgg ci moom yàlla ko yàlla lafal cat amiin defal ko gudd fan gu ànd ak wér amiin amiin am na loo xam ne ci xolu taalibe yi lay jóge tabbi ci moom yàlla na ko hmm. yàlla defal jàmm oh, kon nag uh, bu ko defee dañuy yemale foofu kàddu yi tëje Cheikh Abdoul Karim Mbacke sama sëriñ di ko ñaanal mu gudd fan doo ñamal sëñ Saliou ah, waaw ànd ak wér damaa bëgg ngeen tëj ma tëje sëñ Saliou waaw incha allah bu demee fee rek tabbi ci sëñ Saliou ah, xanaa rek di wax ne Cheikh Thierno ñoo ngi ndokkelaat bu baax a baax ak di sargalaat bu baax réew mi di wax ne rew mi yalla na fi yalla def jam. allahumma ndax Cheikh Thierno rew mi fay rew jam. te mam khadim rasul sunu sang bu tedd ba neena jam gisul ko gën fi gisul ko gën fa jëm wallahi kon kep kuy dox war nga dox ci jam kep kuy jëf war nga jëf ci jam kep kuy dogal war nga dogal ci jam ndax jàmm joojule ci nga mëna a jàmmoo Cheikh jam. ci ngay mëna kon dal réew mi daal yàlla fi yalla def jam di sargal ñepp di ndokkeel ñepp di wax ne daal euh bañu tabbi wat nak ci sunu benen numéro Cheikh Thierno Ndiaye. Mamadou jërëjëf. Hmm. delu waxati rek ni maam yi dañu dégloonte woon. Hmm. kon ñun ñu dajé ci jamono nañu deglonté ak sunu kilifa yépp kilifa diiné yi. Hmm. surtout kilifa diiné yi. nañu dégloon teg ñoom bu baax déglu leen déggal leen ñaan sunu boroom dolli jàmm ci réew mi hmm. ñaan sunu boroom raxas xol tàppe ko cey boole ñëpp ñu bennoo ñaan sunu boroom réew mi doon ngën fi réew réew ma moo ko sàmm hmm. askan wi doon ngën fi askan nañu dawal yërmande ci sunu biir bu ñu dawalee yërmande ci suñu biir te dëgg lal ko dëgg waay lu dëgg lalul baaxul <laughs> dëgg waay dëgg lal baax ndax dëgg yàllaa ko moom hmm. buñ ko lalalee dëgg rek lu ñu ñaan sunu borom dinañu ko defal gars yi nañ leen bennoo hmm. fii la ñu am sunu maam yi fii lañ leen denc gars yi nañu bennoo fii la ñu am fi lañ gënee àddina fi lañ ñuy denc daay mm. nañu bennoo ndax fii mooy sunu ndono mm. te sa ndono da ko war a fonk ba mu gën a la sa bopp yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi Sidi Aboubacar loo ñuy tàggoo ñaari loxo ca kaw jar na ko. burum jàpp ndel xabaar. xale yi ma def leen ni Cheikh Amadou Bamba defoon mag ña. Sëriñ Saaliw moo ni woon moo woon ay Sëriñ Saaliw Mbàkke moo ni woon. lu mu wax. dina ànd ak yéen su ma demee ba gisatuma leen dinaa taxaw xaar leen su taxawee xaar leen gisuma leen dinaa. dellu si jël si leen ay sëñ Saliou mi sëñ Saliou wooy ñëwal nga gindi nooy daara ya ca maxwaam Saliou wooy kan moo dégg Sadix du sëñ Saliou. ku dégg Sadix sëñ Saliou. ku soog a dégg sëñ Saliou sëñ Saliou. waaye jox ñu sëñ Saliou ak. ana soppay sëriñ Saliou waay ñëwal nga gindi nooy du gént duy nax. du gént duy nax. ñi meesu ko dama dégg nuy wax naan Serigne Saliou Mbacké dem naay keroog la adduna bi yëpp yëpp bokk di rëb-rëbi koo ci gis ma ngay jooy ko ci na noppil muy gën a jooy te naan ñun de xamunum ku dul Serigne Saliou Mbacké borom xabanaay def leen ni nu magal Serigne Saliou wooy nga gindi nooy liin xamoon ci dongab daara ay sëriñ saaliw liin xamoon ci dongab daara yàlla doora añ te yow sakk njël daa sax ci say daara waaji le sab dongo du yalwaan mukk sëriñ saaliw ay mbubu baatu bay dangay xotti ay tergaal ñawlu dal di leen def leen ni nu màggal Sëriñ Saali wooy ñëwal nga gindi nooy xel kon na jooy naa ndeysaan ndeysaan njurul ja jooy سال ويلا يلا دل الليرم يا بروم لي خادتل وجور والوسال هو بيتي وجسمي وإن ni Sëriñ Saaliw yal na yàlla dolli leeram yow irham jami yow yaramal Sëriñ Saaliw xul wara mi ne la daan ne balay sa cey seexu saaliw lu yaa bi na mu jayaatu na sëriñ saaliw yërmandeem jayaatu le Seex Bamba defoon ca mag ña woon mam Cerno Birahim Seex Mandumbe Mbàkke Seex Anta borom Daaru Salaam lu xëy defaat ci ndaw ñi ndaw loo ci gis kanam gannaat muy sant coy Seexuna

la Seex Bamba defoon ca ma ñëwoon la defaat ci ndaw ñi leen ndaw loo ci gis kanam ganaat muy sant cey Seexuna Sëriñ Saaliw fa xaarul li maa yurit mooy buur yàlla de ci coobareem ba lay jëf jëf na bayoo bu sang baa cey Seexuna Sëriñ Saaliw dara yi jooy nanu dongo yi jooy nanu imam yi jooy na cey Sëriñ Saaliw bala yi jooy nanu xa soppey Sëriñ Saaliw nanu ba nó jooy na cey Sëriñ Saaliw Sëriñ Saaliw makka chơi jooy nanu dina de jooy naa Baye Saliou mi jooy naa Makka de jooy naa Madina de jooy naa Serigne Saliou am na woo dara jooy noonu dogo yi jooy maam yi jooy na noo sëñ Saaliw réew mi jooy na la Makka ja jooy na Madina jooy na àddina yooyu joowaay tubaade yooyu jooy loxo ca kaw am na soppe sax bu saa dara coocoon dara ji jooy nanu lala sa kalam ji jooy nanu lala sa kalam maam yi jooy na jëy sëriñ Saaliw mi jooy na la akaya jooy la àddina jooy na tubaade na ma bii na ma yaay doonay fallu laay nii leer tuma waaw waaw yow na ma ay baay këri yaay doonay fallu laay nii leer na ma soppay alaaji Fàllilu la yaay dangay wàllu laay li wér na moom Cheikh Abdul Karim Madina booba la woote ca toola laa ilaaha illallaah ca ñàkk am ay ngëneel li leer jama yow yaa di Fàllilu la sa baay diine dana ma ilalla leen maam Bamba mooy sa maam li leer dama ah. yow yaa laay ni soppi alaa di lu fal lu laay yow yaa laay leer na ma noo la bëgg tamit dëgg bay kërim borom di ndenge ñoo la bëgg ñoo la bëgg te muy dëgg am na soppi borom di ndenge ndeysaan Cheikh Abdoul Karim Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di ñaanal bu baax sama way juru góor Serigne Mor Mboup sama papa dafa sonn ci man yàlla na ko suñu borom defal yokkute ak da ak xéwal yu bari yàggal ko ci suñu kanam ak mboolem njabootu Baye Modou Mboup gépp barkeb sëñ Tuubaa xaadim rasul allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim soppey Cheikh Abdoul Karim Mbacke yi nekk Thiès ñëpp maa ngi leen di ziar ci njiital Adja Penda Ndiaye sama yaay soxna Binta Pouy borom teraanga yi ci man émission bi nag yéen ñaar yéen a ko moom ak Cheikh Abdoul Karim Mbacke borom makaarimal axlaa jërë ngeen jëf Rijal Gueye dinaa la woo nga wax ko sëriñ bi mu seetaan ko te dolli ñaari ñële ak télé bi mu gën a jëm ca kaw Cheikh Abdoul Karim na mucc na yokk ca kaw Télé Futurs Médias barke borom tubaab ak mboolem ku fiy liggéeyee barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg